dafay nu woo xalam dëkkal lu baax ci am xelam tey rafetal yi nuy xolam bu dee sikar xolam xalam saajid dafay nu woo xalam dëkkal lu baax ci am xelam tey rafetal yi nuy xolam bu dee sikar xolam xalam suñu mbokk yi jàkkaarloo ñu ci duñ seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu su ngeen déggee xasida yi ak olofal bu am solo boobu ci waxtu wii ci ëtt bu tedd bii di ëttub sëriñ moor Kayre ngeen xam ni ndigal bàyyi ko na ca xalif général kulu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ci ànd wér jaar ci Serigne Ahmadul Muxtaar Mbacké mi nga xam ni moom lañuy ñuy xoolee tey jëmmi Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye itam Serigne Abdourahmane Mbacké Gaynde Fatma Serigne Moustapha Mbacké Mohamed yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér wàcc ci mbooleem njaboot ak Serigne Mor Kayre gépp mbokk yi su ngeen gisee jotaay bi xam ni ñu ngi ci bis bu am solo bi nga xam moom lañuy waajal muy bisub sant bisub ñaan bisub fàttaliku jàmbaar lislaam ja di sëriñ Mor Kayre bindkatab seexul xadim ba werekaanu sëriñ Touba xaadim rasul wa bis bi nag ñu koy fàttaliku fii ci Touba Daaru Xudus niñ ko baaxoo amale at mu jot moo tax na di toog jotaay bu tedd bii bis boo xamante ñu ngi ko yëgal mbooleem njaboot ak seexul xadim gépp tàmbalee ko Daaru Xudus kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadul Moutada kër Soxna Faat ja ba ci kër Soxna May mbooleem seex yi bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn moo tax nag bés bi mi ngi rekk nag ren fukki fan ci weeru koor tombeek ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars wi ñu nekk fii ci Touba Daaru Xuddoos loolu nag moo tax dañ yëkkati kàddu gu njëkk gi jox ko Serigne Jibril Ñing moom mi nga xam ni mooy woote ci turu mbooleem soppe yi nga xam ni ñoo aju ci Serigne Mor Kayre waaye itam aju ci kër gi suñu paree itam jébbal kàddu gi nga xamante ni moo di Serigne Mor Diop mooy woote ci turu mbooleem dawaayir yi nga xam ni ñoo aj ci sëriñ Mor Kayre ak fédération yi aju ci kër gi yëpp suñu paree jébbal kàddu gi sëriñ Xaadim Kayre moom itam mu woote ci turu mbooleem ñi nga xamante ni euh, sëriñ Xaadim Kayre mu woote ci turu sëriñ bi moom mi nga xam moo yor kàddu sëriñ bi suñu paree ci sëriñ euh, ginnaaw bu ñu paree itam leen jébbal kàddu gi ki nga xamante ni moo di sëriñ Cheikhouna Mbaj mu wax ci turu nag sëriñ moor Kayre ak turu mbooleem jànkati xasida yi ginnaaw bi tam ñu jébbal kàddu gi soxna Binta Sàll mu woote ci turu mbooleem soxna yi nga xam ni ñoo nekk ci koñ bi cee ànd ak Serigne Mor Kayre ànd njaboot gépp bés bi bu ñu paree tam jébal kàddu ki nga xam ni moo di soxna Faat Kayre moom mi woot na ci turu mbooleem daayira bi nga xam ni mooy ëttu soxna yi ayu ci kër sëñ Mor Kayre bépp te ñoom itam seen pas-pas seen taxawaay yàgg cee taxaw at mu jot di taxawaay bu am solo mucc ayib lool kon li ñuy def mooy jibal kàddu gi sëñ Jibril mu woote nag ci turu mbooleem soppe yi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen balaax te di leen balaax di jéggul itam yëkkati kàddu gi waaye daf di ndigal lu ñëw ci wàcc ci suñuy loxo ñu di ko jëfe su ngeen déggee kàddu gi bàyyi ko sëñ Moussa wàcc si ci mbooloo mi muy kàddu goo xam ne dafay fàttali lu jar a fàttali di beesalaat loo xam lu jara a beesalaat la ñuy nag ñu jox ñu kàddu ñu war a fàttalee rek di soññ suñu mbokk yi nga xam ne dañoo jiite daara yi soppey jàngkat yi suñu yi nga xam ne ñoo jiite daayira yi soppey jàngkat yi ñun nag ñuy yëkkati kàddu gi nga xam ne mu bàyyi ci soppey Mame Mor kayre di ko wàcce ci suñu nawle yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci dëkk bi ak ñu nekkul ci dëkk bi yëpp waaye di ko tàmbalee ci daayira soppey sëñ Seexuna Mbaj ak sëñ Xaadim Géey sëñ Modou Kara Thiam suñu dan xëy na du ñu mën a matal ñëpp rek waaye ñu xam ne képp koo xam ne jiite nga daayira soppee jàngkat rek ñu ngi lay woo ci bis bu màgg bu tedd bii di la ci séentu xam ne bis bi ñun ñëpp noo ko bokk di leen ci jox itam cër ba ngeen ci amoon démb ak bërki démb dañ koy gën a fedd lu baax képp koo xam ne rek ab jàngkat bu dee jàngkatu kuréel la am nga soppe ci moom itam rek xamal ne bis bi am nga cib cër am nga ci wàll woo xam ne ñun ñoo ngi la ciy séentu ci waxtu wu ne saa su ne ci bañ yeggee ci bés ba muy arxame ji ñi séen di doon fukki fan yi loolu itam ñu ciy fàttali rek mbooleem ñi nga xam ne am nañu cofeel ci jàngkat waaye itam daayira kuréel gi ci kër gi ñu koy xam fàttali moftaayul munaa ñu itam ñu leen ay fàttali bis leen ci woo ñoo ngi wàcc foofu suñu kàddu di jégalu baax a baax asalaamaaleykum wa taala wa barakaatuhu bokki taalibe yi bokki waa kër Mor Kairé ñoo leen di nuyu di ko tàmbalee ci daayira Mbuur sëriñ Pape Mbengue nekk ca bopp ba ak daayira Dakar Serigne Buubu Jannu di jëwriñ ja ak dayra Tëngéej sëriñ Ibrahima Ngom nekk ca bopp ba buñ fi jógee ñu ñëw ci daayira Touba sëriñ Bachiru Kanji nekk ca bopp ba buñ fi jógee ñu dem Saalum ñu koy wax ñii bindoo ni sëriñ Omar Ndiaye nekk ca bopp ba Sanjara sëriñ Abdoulahi Jéey moo fa nekk fa jógee ñu tudd bokki bawal yi fu mel ni jol njaay jol kadd jokkuli bànneex ak jokkuli aale ngoone ak jokkul jeng bàyyi wunu kenn ñoo ngi woote ci turu Serigne Thierno Kayre mi nga xam ne mooy xalifaab Serigne Mor Kayre yàlla na fi yàgg ak képp koo xam ne nekk nga ci kër Serigne Mor di ab soppe di ab taalibe ñoo ngi leen di woo ci bis boobu yi jërë jëf ngeen bal ak wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu yéen te jéggal nag ci kàddu yi di nuyu suñu soxna yi di leen ziare di leen nag soññ rek ci bis nga xam ne ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo mais bisu sëñ Mor Kayré ñoo ngi ci woo ñëpp di ci jox suñu tàll suñu loxo ñëpp. rawatina suñu at soxna yi nga xamante ne bi soxna Fatou Seye moo ko jiite bu dee bawal la soxna xadi Sarr bu dee Ndaamaatu suñu koñ bi la soxna Absa Jaxate moo nekk ci bopp bi di njiital jigéen ñi ak soxna Khady Niang ñoo ngi leen ci woo yoom ñëpp di leen taalal loxo di leen ci soñ bu baax a baax di ci soññ suñu bopp di jiital nag di soññ nag suñu mbokk jigéen ñi niñ ko taxawoo woon daaw ak daaw jéeg ñu ko raw lañ bëgg ñu taxawoo ko leen ji soññee nañ leen ci di leen ci soññ bu baax a baax a baax ñu gën cee am passif ñaan yàlla suñu borom ni ñu ko defee woon daaw rek suñu borom gën ñu ñoo jàppale ba def na koy suñ jot ren jii ñoo ngi jéggal nag di nuyu ñëpp di ci woo ñëpp di ziare ñëpp nag ñoo ngi jéggal bu baax ci kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki taalibe yéen mbokki jullit yi ñoo ngi santaat yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa fekkee waatee nag ren di ñaan bis bii nga xam ne ci ëttub sëñ Mor Kayré bi lañ ko koy defalee. di ci ñaan yàlla suñ boroom lépp luñ ci ñaan yal nañ jot ci ba te nit ñu koy sàkk di ko ñaanit suñ boroom jox na ak yiwam ni ñu woote nag ci turu soxna Astou Kairé mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci kër sëñ Mor Kairé mbooleem ñun bokkal sëñ Mor Kairé ñoo ngi leen di woo mbooleem njabootu sët bi buñ ci jiitalee soxna Astou Kairé noo ngi ci def soxna Daba Kairé mi nga xam ne ci gàttub sëñ Thierno Kairé ci njiitu sëñ Mouhamadou Yadaali di ci boolem mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo nekk ndaamaatu ak fépp kuy sëtub sëñ Mor rek noo ngi lay woo ci bisam bi di la ñaanal yàlla ñu feeteewaat ko nagani déwén te ñëpp wuy si te am ci pas lépp loo njàmbaar biñ ci defoon daaw ba bis boobu sell ñoo ngi ñaanal reen jii kenn ku ci ne pas-pas ba nga ci amoon nga dolli sa yéene dolli sa kattan yi sa taxawaay te ñaan luñ ci ñaan yal na ci borom jotali yiw yi ci barke Cheikh Moustapha ñoo ngi leen di sant di leen gërëm teewlu ci bis bi barke Cheikh Moustapha aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki yi bu ngeen gisee jataay bi xam ni bis bi nga xam ni moom lañ baaxoo defal Serigne Mor Kairé mu daan tombe fukki fan ak ñaar ci weeru koor gi waaye ren ji moom ak coppe ko tuuti ñu di ko def fukki fan ci weeru koor wi muy alxames bii nu mal bu dellusee di ñaan yàlla yóbbu ci ak jàmm euh, noo ngi siyaare bu baax ñi seetaan sunu jëmm yi tey dégg sunu kàddu maa ngi wax ci turu sëñ Mamor Kayre mii nga xam ni moom lañ duppee maamam euh, nga xam ni bis bi am na ci ay taxawaay yu am solo waaye di ko ànd ak kilifaam yi sëñ Cerno ak sëñ Xaadim mi ci sunu gannaaw sëriñ Bachir ak mboolem njabootu sëñ Mor gi waaye sëñ moor nee na mi ngi soññ ak di fàttali ñi nga xam ni amul ñu dul ñoom yàlla boole leen muy jànkati xasida yi mi ngi leen di soñ ci bis bi di sant ci la te di leen soñ ci li nu dëgmal taxawaay yu am solo yi daan def yëpp ci njiital sëñ Xaadim Géey buñ ko tuddee rek mu doy sëkk waaye sëñ Mamoor nee na mi ngi soññ itam ak a fàttali kilifaam yi nga xam ni am lente na ak ñoom Euh, te seq ak ñoom ay teraanga ngir jëmbi sëriñ Touba rek ñu jàpp ko lool bu tuddee ku mel ni Serigne Bassirou Abdoul Khader ñu ngi ko ci soññ bu baax te di ko fàttali bis bi di ko sant ci taxawaay yi weesu waaye di di ci soññ si Abdou Lahad Mbacké di sëriñam si Abdou di ministre di conseiller moo ngi ko ci soññ sëñ Mamor itam ñoo ne mi ngi fàttali bis bi ak a soññ euh, Ka wëllëreem di meeru Touba sëñ sëñ Mamour itam nee na mi ngi soññ sëriñ Cheikh Ndigal Fall di wëllëreem moom itam bis bii mu daan ci am ay taxawaay yu am solo sëriñ Sidi Ñang moom itam wëllëreem euh, bis bi nag ren at mu jot day am ñu ñu koy féetale ñii ñu di leen ko tudde ñii ñu di leen ko dara jaale ñii itam ñu di leen ci rendre hommage ren jii ñi nga xam ni euh, ñoom lañ ñoom lañ ci rendre hommage ñuy magi kër gi bu ñu tuddee Baye soose Ndiaye Touba moom lañ ci rendre hommage ñu ngi koy fàttali ak njabootam yëpp Baye Lat Fatim Faye Mbour moom itam danañ ko ci rendre hommage Baye Codé Ngom Tëngéej moom itam danañ ko ci rendre hommage ñu ngi ko danañ ci rendre hommage tamit suñ Mamadou Lamine Gueye Firdawsi ñi nga xam ni ñoo bokkoon ak ëtt bi sëñ moor Kayré ci kër sëñ Touba moom moom moom moom itam bis bi ren moom lañ ci rendre hommage moom itam ñu ngi koy fàttali ki ko fi nekkal di sëriñ Xaadim ak mbooleem njaboot gi yëpp bàyyiwuñu kenn bis bi nag mi ngi ko parrainé itam sëriñ Bassirou Mbacke imam moom sëñ Moustapha imam di wëlëre di xarit di soppe moom itam di nit ku am solo di nit ku baax moom lañ ko parrainé te ren ji Euh, noo ngi ko koy fàttali bu baax te di ko ñaanal yàlla euh, yéeneem ji mu am ci sëriñ Mor am ko itam ci jànkati xasida yi suñu borom àggale lépp sëñ Basiru bis bi ren sa bis la. ñoo ngi ko marraine itam soxna Bali Muntaxa mi nga xam ni ñëpp xam nañu ko di koo xam ni lu baax rek lay def ci ci dëkk bi ak bitib dëkk bi. waaye bokk ci njabootu sëriñ bi moom lañ ko pare moom lañ ko marraine ren ji ñoo ko ci soññ bu baax te di ko fàttali balay sax euh, lim buñ bu duggee ci lim du sotti mënuñoo ñoom lim ñëpp waaye nag sëriñ Mor itam euh, mi koy euh, ku ñu wax Mayram Kéré astronome te féete ca Ndakaaru di mbokk ci sëriñ bi di mbokk ci kër gi moom itam Euh, dañ ko def invité moo doon invité d'honneur bi moo doon invité d'honneur bi moom may Ram Kairé kon na nga koy fàttali bu baax te di ko ko soññu bis bi bisam la bisu maamam la euh, bisu sëriñam la euh, kon ñoo ngi koy fàttali ñëpp bàyyiwuñu kenn sëñ Mor xam naa ni lim nu waxoon ngir ñu ba ngir ñu mën koo jotal xajul ci xajul ci annonce bi waaye nag ku dégg sunu kàddu te daan jàpp ci bis bi nga xam ne bis bi si na sa bis la noo la ci soññi noo ngi koy fàttali ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwunu kenn incha allah bis bi itam euh, ku ne xam ne sëñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Mbàkke soxna loo bis bi daana ci ñëw di ci def ay waxtaan yu am solo ak i soññee bis bi noo ngi ko koy fàttali bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér sëriñ Fàllu moom sëñ Mbacke Mouhamed moom itam na nga ko koy fàttali bis bii daana ci ñëw moom itam di ci taxaw taxawaay am solo sëñ Baara moom sëñ Mbacke soxna loo njabootu sëñ Mbacke soxna Lo gépp bu ñu tuddee sëñ Moustapha soxna May Taïf bàyyiwunu kenn duggee ci lim dana am ñu nu bàyyi waaye njabootu sëñ Mbacke soxna Lo yëpp bàyyiwunu kenn ñoo ngi soñu ñëpp ndax bis bi seen seen bis la ndax seeni taalibe rek fi nekk. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi seen tur ak sant ci ndigalal sunu xalifa sëriñ Jannu Kayre di ñaan tabaaraka wa taala mu guddal aw fanam te dolli ak wéram ci ndigalal jawriñam sëñ Xaadim Taïf ak mbooleem surtout ci sëñ Mor Kayre di leen fàttali bis bi nga xamee ni mooy alxames ji ñu jublisee delsee ñaar ci kon benn ci weeru mars muy bis bi nga xam ne ci lañuy ñuy fàtti fàttaliku maam ju baax ci sëñ Mor Kayre radiyallaahu anhu nafaanaa bi barakaati ak mboolem njaboot gi dinañ koy fàttali ci lam ñu daan diggal ñu di ko ko fàttalee te mooy jàng alxuraan ak xasiida wax na nu njëriñul jàng alxuraan ak tudd yàlla moom suñu Mor Kayre dafa wax ni ku bëgg nga neel yooyu doy yu yeew na sax di sikkar ci biiru géew añab tur yàlla moom dafa teew dangay ngay bég foo ko ci yooyu rek lañ koy fàttaliku daal ni murit day wéet di durus xasidaam murit day wéet di yër xasidaam di tudd fi biiru nit mawlaam sikkarkat réerewul yàllaam du suufee ba dox di góobaani kon ci yooyu rek lañ koy fàttaliku bu doon jëmm joo xam ne moom suñu mor dafa bëggoon suñ Tuubaa ba man ne ku xamul da nga jàppee ab dof mu ni sa leer gee tax yu suñ Tuubaa ñu ne am ab waaye dañ yem dof naa si kër laa dof leer bëgg suñ Tuubaa gi ak tudd gi mu tudd yàlla ñu ko xamul dañ ko jàppee ab dof mm-hmm. teg ci ne doole dib daax yow suñ Tuubaa waaye dindil ma ko yow ki def waane yow mi nga xam ne lu waaye tawat nga dindil ko ko maa ngi lay ñaan ñaari tawit yi nga dindil ma ko yaakaar naa ne dindil na ko ba mu set wicc kon noo ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp di ci kàddu yi nag tey eh, yaakaar ñëpp teew ci sàpp yi ak wëlër yi ak jàng alxuraan maa ngi woo ñëpp xam ne bis boobu incha allah suba gi lépp alxuraan xasida yi nañu durs ci guddi gi na ñu door a yëkkati xasida yi eh, mawlulkat yi ak ak jàngkat aw yi ñaan suñu bam taala ak si ci ak jàmm mu gàtt ci gàtt nu ci ndimbal ak tawféex ci barke sëñ Touba barke Cheikh Mbarké barke xasida yi ak waaw di ko yëgal tamit Cheikh Cheikh yëpp ñu leen ko yëgal ñu leen ko yëgal sëñ Abdou Lahad Ka ak mboolem Cheikh yi rek ñu leen ko yëgal bu baax baax baax na jërëjëf jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu sëriñ Xaadim Kayre mbokki jullit yi mbokki taalibe yi woote baa ngi noonu bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñ ñenn fukki fan ci weeru koor tombeek alxemes ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars fii ci Touba Darou Khoudoss sant ñaan fàttaliku sëriñ moor Kayre werekaanu seexul xaddim wi moo tax sëriñ bi ne mi ngi koy fàttali mboolem seexi sëriñ Touba yëpp rawatina seex yi nga xam ni ñoo ay ci Darou Khoudoss sëriñ moor Kayre itam wax ni mi ngi koy fàttali ji woo mboolem daayira Touba li abdin muridin bàyyiwul kenn góor jigéen mag ak ndaw bis bi nag ren dañ koo tuddee koo xamante ni jàmbaar la mu di sëriñ Basiru Mbàkke imaam moom sëriñ Moustapha imaam bëgg jànkati xasida yi bëgg sëriñ naa Mbaj ba law ba ci sëriñ Mor Kayre am yéene ju rëy ci seen diggante yàlla na yàlla def lépp mottali sëriñ bi nag kon ñu ngi koy ci woo ca di ko fàttali di ci woo mbooleem njabootu sëriñ Abdou Khafour gépp njabootu si Moustapha imaam gépp xam ni bis bii seen bis la ren jii ko sëñ Mor jël tuddee ko ko waaye naka jekk taxawaayam ak pas-pasam jiitu na tey waaye nag dañ koo mare ne kenn koo xamante ni soxna la waaye itam taxawaayam taxawaayu góor la mu di soxna Bali Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke xalif général kulu murit soxna baali ak fondation soxna Bali Mountakha bépp ñu ngi leen ciy woo ci leen ko fàttali soxna Bali ca pas-pas ba ca njàmbaar ga ca liggéeyal Serigne Touba ga ca doyloo Seexul moo tax digganteem ak Serigne Mor Kayre waaye itam digganteem taxawaayam ak mag yi diine yi moo tax ren jii Serigne Mor Kayre jël bi mu nekk marraine bi ñi ngi koy woo ca di ko ci fàttali waaye nag bis bi di bis boo xamante ni jàng alquran jàng xasaayit istixfar salaatu ala nabi la mboolem xeeti jaamu yàlla yëpp su demee ba julli timis ba doog ba pare nag ci la ñuy def cérémonie officielle bi mboolem délégation yi teew ñu fas yéene waxtaane Serigne Mor Kayre ak dundam ak ki jaar-jaaram guddi gi itam ñu wéyal njàngam xasida mi ba samaan set ñu ngi ci woo mboolem jànkati xasida yi daayira Touba euh, daayira Mouwaay bu Naafeex ci njiital Serigne Khadim Gueye ak mboolem jànkat yëpp ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa